constitutionnelle supérieure aux lois pénales pourquoi du ngeen ko wax. kooku c'est pas à moi de l'apprécier man li ma la mën a wax mooy il y a un droit qui est ici et tout sénégalais am na droit exercer ko loolu laay wax. gis nga man dama nekk may mun a bàyyi ma ñëw aussi. parce que man li may wax dafa am solo parce que dañ maa interpellé ça veut dire que su fekkoon ne sànq dama doon tontu débat bi mun na yàqu parce que on est dans un débat très civilisé macha mais attention may mun mais il de a yoo xamante nit ñi mais ils se sont exprimés mais en fonction de leur liberté parce que xam lan mooy liberté démocratique mooy nga ñëw tey par exemple tu as une opinion boo xamante ni mun nga ko exprimer sans heurter sans discrédit sans infraction et pourtant am na ñoo xam ne li ñu mais jarul ñu leen ci jàpp am na ñoo xamante ni li ñu leen jàppee ba ñu demee mënoon lañ leen ci bàyyi xam nga lan moo tax am na ñoo xam ni sax jaa wax bracelet am na foo xam ni sax la justice da nga koy humaniser am na foo xam ni dañuy wax la nécessité même des peines Parce, mais mais en réalité nous sommes dans un droit pénal et c'est le droit de la certitude xam nga ni tey soo jëlee takkal ko bracelet électronique dafa graaw déjà yaakaar nga ni da mën naa daw yaakaar nga ni amul garantie de représentation de représentation pardon yaakaar nga ni infraction bi mu def c'est un caïd wala c'est un grand criminel comme on dit alors que ñii ce sont des hommes politiques gis nga lu may wax sànq. bracelet électronique duñ ko takkal violeur duñ ko takkal pédophile. oui duñ ko takkal trafiquant de drogue ah. donc c'est une façon pour, euh, pour d'humaniser d'humanisation de marque de considération non dama ne. bracelet électronique non dañu ne la bracelet électronique bañ nañ ko ba bu ñu la koy takkal dañ lay laaj sa avis est tu es d'accord ou pas. parce que boo ko doon mandat tout à fait. c'est une alternative quoi. c'est déggoo li ma la wax dama ni la bracelet électronique bii ñu takkal ñi ñu takkal ñii dama ne la li ñu def mais boo ko xoolee dama ne la en fond mën nañu ko apprécier est-ce que c'était nécessaire. mais xam li may wax non très bien je suis totalement d'accord le juge moom mooy apprécier loolu la loi bi wax mais nous nous apprécions. Mais, aussi juste une question juste une question quand un leader politique magistrats yi nañu maytu seen bopp xam nañu seeni kër loolu est-ce qu'il exerce un droit à la résistance quand un responsable politique dit nañu dem lakk seen kër yi nañu dem déloger leen nañu dem def nii loolu yow nan euh, droit à la résistance la wala lan dama ne je condamne toute forme de violence. non est-ce que yow jàpp nga ne c'est une menace s'il vous plaît s'il vous plaît euh, est-ce que c'est est-ce que le citoyen en ce moment-là exerce son droit à la résistance face à un supposé oppresseur. non ya y a deux choses ci question bi nga ma laaj violence fu mu mën a demee nu la violence elle est et multiforme dama ne bu mu ci mënti doon man je la condamne fermement ak fu mu mën jóge donc du droit à la résistance. non non bàyyil ma ñëw moo tax ma ne la question bi y a deux choses il d'abord la violence et l'exercice du droit à la résistance c'est différent parce que nit mun na exercer droit sax fekk ba mu koy exercer boole na ci violence. c'est wala nit mun nañ ko teg violence mu jële ci moom exercer droit moo tax ma ne la ñaari bokkul bu ñu ko jaawalee par contre il faut condamner la violence d'où qu'elle puisse venir il faut être ferme sur les principes amul xaj ak seen mais par contre lu may wax mooy wax bu ñu fi wax fi Sénégal état de droit la. la justice mën na ko éclaircir wax bu ñu fi wax maintenant est-ce que maintenant ci ay wax dans une démocratie parce que boo ñëwee démocratie dañ la naan c'est le bruit et c'est le débordement Paul Ricoeur wax ne la démocratie la démocratie lan la daf la naan ce n'est pas synonyme de paix mais c'est synonyme d'apaisement démocratie moom mel noonu day am di bruit et débordement maintenant institution dañ ne la c'est l'ordre et c'est le cadre bu loolu amee nag dangay am dans un équilibrisme compliqué parce que boo ñëwee bëgg brimer nit ñi wala bëgg taxawee leen na mun nga étouffer les libertés. merci beaucoup beneen bi stop fu ma bëgg a rek nga may ma ko mooy li ma mun nga wax mooy on ne peut pas cibler un camp boo xamante nii lu mu def ñu jàpp leen alors que am na yeneen camp yoo xamante ni suñu ko bu loolu loolu dafa am deux principes yoo xam ne dafa nekk dans la constitution te mooy les deux mamelles de la démocratie la liberté l'égalité l'égalité de la justice elle est rompue parce que benn camp rek la ñuy topp di ko jàpp on sélectionne des illégalités et on laisse des inconvenances à l'état de droit démocratique